أتنا منوكو خولنت والكنو أو بن مالك منوكو رسول دار الفجاج أتنا منوكو خولنت والكنو أو بن مالك منوكو أدنى منوكو خولنت والجن أو بن مالك منوكو di gën a jaxasoo ak daayira yi maam jaara ya ne ca gox ba di leen gën a xamal liggéey bi di leen ci gën a soññi loolu am na ñu bari ñu ko tàmbali fañ ko njëkka tàmbali mooy uh, doon mooy Bambey bërki démb def nañ ko Kaffrine waaye damaa bëgg mu bañ a yem foofu kenn ku nekk fa nga nekk donte sa kër la nga di ko fa gën a xamle gën a leeral liggéey bi ña nga xam ne xamuñu ko ndax liggéey bi rëy na te am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem waxtu wu ne day yokku kon nag ñëpp nun ñëpp nanu sasoo di ko gën a xamle di ci gën a xiirtal nit ñi. ndax kat loolu. ndax loolu. lii na lii nga xam ne moom la liggéey bi di def mooy sunu warugar nun ñëpp. léegi ci foog naa léegi mel na ne thème bi ñu doon def mooy ak turas. noonu nag sunu turas ci sëñ Touba mooy lii. mooy jàngale. jàng xamle. kon nag loolu. daara ji dara jiituwu ko ci na ci kenn ku nekk gën a taxaw ca fa nga nekk te loolu la ci ëpp solo mooy daayiray maam jaara ya nekk ya nekk ca fa nga nekk nga jaxasoo ak ñoom di leen soññ même jëwriñ ya fa nekk ngeen xam leen di leen soññ ci liggéey bi te di leen gën a leeral itam liggéey bi nga xam ne mooy ak dolliku ci liggéey bi mooy mooy parrainage bi te loolu kenn ku nekk fa nga nekk ak say xarit ak say àndandoo ku ci bëgg lu baax mën nga leen ko wax ndax loolu kenn ku ne mën nga cee liggéey jërë ngeen jëf ba subaak jàmm incha allah ملكاتنا منوكو خولنت والكنو أو بن ملك منوكو خولنا دار الفجاج عدنا منوكو خولنت والكنو أو بن ملك منوكو خولنا دار الفجاج عدنا منوكو خولنت والكنو أو بن ملك منوكو